gannaaw ba ñu leen nuyoo dañuy ñëw ak yéen li ci yéenekaay yi li ci gën a fës bokk na ci Tange Tandian bi nga xamee ne def na ab sorti wax ay révélation yu doy waar ci njiitalu Pastef boobule di wuyoo ci Ousmane Sonko ak soxnaam soosu lee ñu gën ko xam ci Anna moom Tange Tandian dafa wax ne diggante boobulee tas na dara amatu fa te dara warulu ko lu ab sorti boobe nga xam ne kii di Adji Sarr def na ko di wax ab secret yoo xam ne kii di Ousmane Sonko daan na ko ko wax si ak soxnaam ba tudd ab nuisette bu rouge moom Tange Tandian moo ko xam ne révélation yooyee Tange Tandian def dafa mujjee jur ak polémique ndax kii di nit dof euh, di activiste ñu gën ko xam si rappeur moom def na ab sortie di wax ne tans Tandian révélation yooyee mu joxe si digganteeg Ousmane Sonko ak soxnaam soose di wuyoo aana dara amu si lépp ab kàcc la te tans Tandian du dara lu dul ak pion nguur gi nga xam ne dañu ko yónni ngir euh, nga xamee ne mooy Ousmane Sonko di njiitalu Pastef keneen ku génn di défendre Ousmane Sonko di woyoo si Ousmane Tunkara di yeewoo fële sa États-Unis moom it def na ab sortie di yëgal ne sénégale yi temps tandia li muy wax dara du si dëgg lépp ab kàcc la digganteeg Ousmane Sonko ak kii di aana tey la gën a neex tey la gën a ratax waaye temps du lenn lu du ab pion nguur gi ndax ku xam temps xam mati trois pom te bu ñu waxee mati trois pom jamono yële moom it doy waar ci ki nga xamee ne mooy Ousmane Sonko Ousmane Tunkara di yeewoo fële ca États-Unis di ak activiste moom yamul foofu nee na tans ku joro moytu la ndax ku mën a tar réew la ndax diggante kii di Wally Seck ak Pape Diouf tans moo jaar seen diggante ba diggante ba jaaree fa xaw a njagas waaye yamul foofu le moom kii di Ousmane Tunkara nee na révélation yooyee tans tànja def si diggante kii di moo Gates ak kii di Wally Balago sekk di wax ne ab coup bu moo gét di préparé Ousmane Tounkara xamal nañu ne dara du si dëgg lépp ab kàcc la temps ab taskatu dëkk la te ku jara moytu la leneen lu ñu war a moytu ay kilifa yeewoo fële sa Touba di nakarlu ak meeting déguisé bi nga xamee ne son excellence monsieur Macky Sall def na ko fa ànd koot Serigne Bass Abdou Khadre ginnaaw ba mu ubbee ak hôpital bu yees boobalee ñu tabax si diwaanu Touba tabee ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadim si teewaayu soxnaam Marème fay Sall euh, kii di xalif général des Mourides recevoir na leen waxtaan ak ñoom gannaaw ba kam président jëlee ab caabi jee kayit yow yëpp jébbal ko ko waaye li si waa Touba di nakarlu mooy bam sa paree dafa amal ab meeting déguisé ba mu def si diwaanu Touba loo xam ne kii di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ak xalif yi fa mës a jaar yëpp suñu ko bëgg Serigne Bass Abdou Khadre yooyu fa ak yàbbi ay kàddu yoo xam ne dafa jóge ci ki nga xamee ne mooy sëñ Mountakha Bassirou yu dem ci président Macky Sall di ko xamal ne rek sëñ bi moom nee na sa digganteeg moom ak waa Touba dara xaju ci lu dul jàmm ak salaam si jàmm ak salaam boobalee la président Macky Sall sukkandiku ba def ab meeting déguisé loolu la waa Touba di nakarlu ndax nee na lu borom dëkk bi bëggul di Serigne Touba bu ñu bàyyi ba tey di ko fa def ndax kii di président Macky sàll gannaaw ba mu demee amal di jàkkaarloo ak ay ngoowam waaye tamit ak ñi nga xamee ne ñoo ko bëgg di ko sa foo moom président Macky sàll mi ngi xamal waa Mbacke Bawal élection locale yii na ngeen si góor Serigne Modou Kara Mbacke Norey mi dafa daanu ki xamee ne mooy président Macky Sall ndax sëñ Modou Kara génn na joxe ab ndigal ne képp kuy taalibeem élection yu ñu mën a jëm nanga nga voté kii di président Macky Sall loolu la sëñ Modou Kara xamle joxe ndigal boobule lees di ay ak taalibeem waaye mbokki internet yi fa la ñuy tëjee li nga xamee ne mooy yéenekaay yi di leen jox dig daje ba